waxtaan yu ubbeekoogul li ko mën a ubbi moo di ñu ni Sadio wëy wala Sadio non ubbeekoogul parce que fi mu fi mu fi mu nekk nii décision médicale moo tëj encore waxtaan wi dara ubbeekoogul léegi bu waxtaan je prends je prends par exemple euh, euh, l'entraîneur en ce moment li ci xelam li muy li mu war def euh, xamagu ko tant que waxuñ ko ni que Sadio dana bokk wala du bokk alors bu fekkee ni nag loolu ubbeeku na damay dooree par exemple euh, li li li li ñu buggul bu ñu bu bu médecin bi ne euh, il va être indisponible pour une période bu nga xamee ni xëy na ñun du baax ci ñun dana fekk coupe du monde bi door ba war jeex et cetera et cetera on ne sait jamais

sans son joueur le plus désiré. Le Brésil a gagné la Coupe du Monde 62 sans Pelé. Et si aujourd'hui dans le monde, on a parlé de Amarildo, <coughs> c'est parce que Pelé était blessé dès l'entame contre la Bulgarie. Euh, Brésil continue sans Pelé, gagner la Coupe du Monde. Mais nous, nous sommes attendons Madame, on est en face d'un match où le coup d'envoi n'est pas encore donné. Compte coup d'envoi bi joxe guñ ko ñuy wax li ci biir match bi te coup d'envoi bi joxe kon il faut attendre léegi nag lu mënti am rek ñu jël